Samba Wane ñu ngi lay nuyu di la dalal. Mm, voilà yow ngay euh, secretaire euh, général bu section locale syndicat national corps gras euh, ca COPEOL muy compagnie mm. d'exploitation des na campagne bi door na depuis le vingt cinq novembre ci xayma euh, le vingt quatre mm. boo ko donc du mat na mm. weer lan lañ mm. mën a jàpp ci campagne atum ren bi commercialisation. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax. parce que mm. euh, donc campagne ren bi moom xaw na wuuteeg ñaar yi weesu. Mm. donc boo ko boo ko xoolee depuis le six. Euh, naam bi mu ubbee le vingt cinq ñun le six commencé nañu jot ay camions. Mm. fi mu toll nii camions yi ñu ngi ñëw bu baax a baax ñu ngi recevoir normalement la daanaka daal bëriwul jafe-jafe opérateur yaa ngi ñëw di ñu ku ñuy livrer nag ñu ñu fay la. Mhm. donc toll nañ fu mu toll nii bi ñu tàmbalee léegi euh, jot nañu recevoir lu toll ci huit mille tonnes déjà. nga ne wute nag euh, ñaar yi fi yi fi jàll ñu bëggoon a xam rek euh, lan moo leen wutale déjà. yéen fan nga ko nattee. waaw li leen wutale mooy lu ñu doon wax la ñaari at yi weesu. Mhm. ne nañu bàyyi ñi nga xam ne ñoo fi nekk dëkk ci réew mi ubbi fee usine ñu jënd ba pare. suñu jëndee ba pare donc ñu doog a xajal ñi nga xam ne dañu dañu wàll si ñoom it ñu jënd li nga xam ne moo fi des donc ñu ñu mun ko yóbbu waaye balaa kenn di jënd dara ñi nga xam ne ñoo fi nekk en tout cas yor fi ay usine di fi fay ay nit donc ñu bàyyi leen ñu jënd donc loolu nag dafa mel ni loolu la réew euh, nguur gi tëral ba boobu ba léegi daal ñun ñi nga xam ne ñoo ñoo nekk ci biir réew di doomi réew mi di fi di fi yëngu ci secteur bi ñun ñooy jënd gisaguñu daal benn benn gan buy ñëw di jënd loolu moo waral donc usines yi ñu ngi ñu ngi jot gorte nu mu waree. kon bi ma la déggee ngay wax euh, chinois yi nga xam ne ñoom la ñu gënoon a remarqué ci campagne commercialisation bi atum ren euh, dañuy bàyyi locaux yi muy euh, huiliers yi fi nekk ñu doxal ba ñu pare wala ñu doyal ñoom ñuy soog a ñëw rangu li fi des. waaw loolu daal lay niru parce que il pare que dañu leen dañu leen ne daal datu exportation yi dafa xaw a sori dañ ko xëcc ba mu sori te xam naa ne ñoom euh, je pense denc seen xaalis moo gën jënd gerte di ko denc donc looloo tax ñoom commencé gu ñu jënd donc en tout cas huileries yi locales yi rek ñooy jëndagu. kon daal tey bu ngeen mënoon yéen gàddu mm-hmm. yëpp. Euh, da ngeen koy jël ñoom mën nañoo ñëw sax bañ fee fekk dara. waaw loolu moo gën loolu moo gën ci ñun moo gën ci réew mi. lépp lu ñu fiy béy ñu liggéey ko doomu réew mi jëriñu ko mu mu mu mu indi yokkute. mais yéen du ngeen ko jël di ko jaayaat parce que am nañ fi euh, ñenn ñi ñu ja ñi dégg ñu ne ñoom ay huiliers lañ dañuy jënd di jaayaat mm-hmm. ñoom chinois yeeg ñoom euh, turquie. Mm-hmm. déedéet déedéet xam naa ne loolu loolu ñàkk ñàkk euh, leeral la. Mm. c'est-à-dire huile yi huileurs yi dañuy jënd du huile rek lañuy ñuy defar. Mm. dañuy dañuy jaay kemb tamit. c'est-à-dire huiliers yi dañuy jënd gerte xott. Mhm. defar ko xolli ko defar ko ba mu rafet di ko jaay. Mhm. dinañ ko jaay chinois bi nag dinañ ko jaay sénégalais bi dinañ ko jaay keneen loolu la mais du ne dañu jënd gerte rek jaayaat ko déedéet. dañ am na am na transformation bi ci ciy def. d'accord waaw su fekkee ne côté boobu la ñuy waxee. Mhm. ndax système bi dina arranger euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy baykat yi ndax kat concurrence dafa neex ci lépp. dëgg la dëgg la mais su fekkee ne ni ñu ko ni ñu ko recommandé ni ñu ko santaanee uh-huh. noonu lañ koy defee béykat yi war nañ ci mën a gis seen bopp. parce que tey euh, nguur gi dafa ne kenn bu mu jënd lu yées juróom fukk donc opérateur bii dem ci béykat bi dafa jënd waruloo fa jënd lu yées juróom fukk. Uh-huh. parce que ñun soo ñëwee ci ñun ñun ñun dañu juróom fukk yooyu nga ko jëndee dañ ciy teg juróomi dërëm ak ñaari fifteen. donc pour wane pour nga euh, kilo bi nag. Mhm. pour loolu pour frais yi nga xam ne moom nga def mooy transport ak chargement beeg yooyu. Mhm. donc euh, jàpp nañ ne daal loolu euh, suñ ko tëralee noonu ku nekk dina ci gis si sa bopp. kon tey yéen waa COPEOL lan mooy seen objectif ci tonnage. waaw euh, am nañ daal objectif cent cinquante mille tonnes xaw ma koy waxe ci wolof mais cent cinquante mille tonnes. Mhm. donc te jàpp nañ ne su fekkee ne production bi euh, dem nañ ba ñun atteindre suñu objectif cent cinquante mille tonnes te mu des ci loxo béykat yi donc dinañ dinañ def ay effort supplémentaire pour mën a pour mën a jënd loolu parce que ñun li ñu bëgg mooy lépp lu ñu fi béy doomi réew mi. jënd ko transformé ko muy mu jëriñ doomu réew mi yëpp balaa ko balaa keneen di wàll si di ñëw di ko jënd. Hmm. ñun loolu mooy sunu sunu mbébét te jàpp naa ne huiliers yëpp loolu mooy seen objectif. mbaa amu leen jafe-jafe pour àgg ci point de vente yi wala. waaw ñun ñun ñun ñun yàlla dafa def dafa dañu adopté benn système bu ñuy wax caro usine. ñun du ñu dem ci benn point de vente opérateur yi lañ ko bàyyee dañuy signé ak ñoom ay contrat ñoom ñooy dem ci point de collecte yi jënd jënd gerte gi ci béykat yi après ñëw jaay donc noonu lay ñun noonu la ñu fonctionner. kon daal euh, convention bi ñoom ñooy jëli gerte gi ñëw andi ko nu mu demee coopération boobu la ku ciy gën a gañe yéen la wala ñoom. bon ah. donc xam naa parce que ñoom ñooy yor camion yi. Euh, ñoom ñooy jëli gerte yi. Euh, waaw ñëw ak moom donc euh, yooyu yëpp ay ay paramètres la. yu ñuy jël en xam naa ne daal xam naa ne daal ñu ci gis seen bopp bu baax. Hmm. suñ ci gisul leen seen bopp kon génn nañ ci bu yàgg. <laughs> d' accord mu am tam beneen aspect muy seen concurrent nga ne hmm. des ngeen fii ci mim réew. tey hmm. wala atum ren dégg nañ Sonacos ñu ne ñoom pare nañ taxaw nañ tem ci bépp boor ngir amal campagne de commercialisation. organisation bu baax ndax ñoom tey euh, xattaluñu leen ci ci ci ci ñoom ñoom ay wujj lañ yoo xam ne yu ñun ak ñoom daal en tout cas wujjante bi wujjante bu bu sell la hmm. bu sell la parce que ñun ñoo bokk li ñu bëgg hmm. mooy développer filière bi hmm. donc te lépp loo xam ne dafay développer bi rek en tout cas ñun au niveau syndical et jàpp nañ ne même su suñuy direction léeg-léeg gisee ñoom di waxtaan pour naka la ñuy def ba dëgëral filière bi parce que loolu mooy suñu intérêt ñun ñëpp ñun ñoo bokk li ñu bëgg bien que ay concurrent lañ mais concurrence bu seen vraiment la yàlla def moom la ñu seex. kon da nga bëgg ne bu desoon si yéen rek. gerte mi dina jaar yoon jënd mi. Euh, te coow du ci am. dëgg-dëgg bu desoon ci ñun ak Sonacos rek en tout cas privé yi locaux yi. Hmm. ne euh, benn coow du ci am. donc loolu moom parce que euh, li ko li koy firnde daal mooy en tout cas depuis le vingt cinq ba léegi ñoom ñu ngi jënd ñu ngi jënd te amul benn coow. kenn laale wala opérateur waaw waaw voilà opérateur yii ñëw ci ñun ñi ci euh, ñooy dem ci ñooy dem ci ñoom. 2020 yéen ñi waa COPEOL euh, moomoon ay jafe-jafe yi nga xam ne dab nañ leen ba mu tax lu toll ci deux cent contrats ñu wax ne dinañ ko doon dakkal. we at mhm. janvier 2020 li ni mhm. mel fu ngeen toll fu mu mujjee. waaw yàlla def na comme campagne bi bi mu démarré démarré na comme ni ma ko waxee sànq ci conditions yu normal mhm. yàlla def na ñoom ñëpp en tout cas ñi ciy libre parce que yàlla day def aussi euh, xëj na am na ci ñoo xam ne am nañ feneen fu ñu liggéey mhm. mais en tout cas ñi nga xam ne ci nu mu tudd amuñu liggéey yëpp woo nañ ñëpp vraiment commencé nañu liggéey ba ñun démarré nañ suñu production sax ñu ngi produire. Mhm. donc liggéeykat yooyu yëpp vraiment ñëpp waar nañ leen ba ñu ñëw tàmbali liggéey. monsieur Wane euh, dañoo gis ne gerte bëri na fi. Mhm. wax mhm. ne euh, atum ren lii lañ ci béy lii lañ ci nangam lii la ñu teg fii maanaam ci déggin dafay bëri si ñun. mais ñu euh, gerte gi fii lañ koy béyee mu am fii ay huiliers ñi nga xam ne ci transformation bi lañ ciy dox waaye du tee suñu diwlin dafay cher loolu nan lañ ko mën a expliquer. waaw loolu loolu xaw na compliqué tuuti parce que euh, li ëpp diwlinu gerte moom dafa cher. Hmm. parce que li liñ koy jëndee liñ koy transformé ak liñ ciy def yëpp charge yi ñu ciy def moom moo tax loolu. Hmm. mais euh, huiliers yu ci mel ni ñun ak Sonacos pour pour pour jaay diw bi gën a yomb dañu préférer donc euh, importer huile végétale. xam nga transformé ko parce que moom moo gën a moins cher bien que euh, taxes yi ñu ciy teg sax moo tax ba mënoon na gën a wàcc bu ci buñ ci tegg woon yenn taxes yi mm-hmm. donc loolu moo tax huile bi cher ba léegi mm-hmm. parce que waaw li nga li ngay amee gerte xott bi ni nga koy transformé ak taxes yi ñu ciy teg ak yooyu moo tax daal euh, donc ba léegi prix bi xaw a kawe mais su ci état bi jàppee mm-hmm. euh, accompagner huiliers yi vraiment ba teg yenn taxes yeeg yenn charges yi am jàpp naa ne dina gën a woo woyof. ndax loolu wund na ne état dugalul loxoom benn yoon ci jàppale huiliers. ah ah kañ ah parce que mu ngi ci soo xoolee ren ni mu demee. Uh-huh. xam ne lañ doon wax daaw ak euh, daaw jéeg euh, bàyyi nañ ci xel ñu ngi jéem a teg mbir yi ci yoon. ba ku ci nekk gis ci boppam. Uh-huh. li ci des kay mooy gën a gën a gën a gën a accompagner gën a jàppale. Uh-huh. Euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci filière bi mais ñu ngi jàppale naam en tout cas huiliers yi. Mhm. E tey ci xayma yaa ngi ko doon wax sànq ne atum ren euh, dara maanaam jafe-jafe yi bëriwul waaye seulement mhm. produit bi muy gerte euh, am na mhm. beneen anam bi nga xam ne moom noonu ngeen ko nemmeekoo maanaam na mu daan diisee euh, melul noonu lu ko waral. waaw li ko waral mooy euh, euh, semence yi semence yi xam nga euh, semence yi moo indi woon jafe-jafe parce que wax nañ ko at yi passé gerte gu gën a baax gi yëpp dañ ko doon bàyyi chinois yi ñu yóbbu ko. Hmm. ba nga xam ne jiw bi ñu joxe de qualité bi des na. Hmm. mais nag su en tout cas tendance bii nii su continuer jàpp nañ ne année at yi di ñëw donc. Euh, semence bi dina dina dina dina gën a baax. Mhm. ba ba tax ba production bi gën a baax. Mhm. mais daal loolu moo mooy mooy jafe-jafe bi ren euh, gerte gi bëri na mais dafa woyof daal woyof na lool lool tey ndax Sénégal moo ngi ci yoon pour bokk ci dëkk yooyu nga xam ne à l'image de la Chine euh, bokk nañ ci ñuy gën a produire gerte ci àdduna. waaw ñu ngi ci yoon bi ñu ngi ci yoon bi parce que xam nga position bi ñu amoon dans les années soixante dix moom position bu bu baax la woon. Hmm. mais donc euh, en tout cas jéego yi ñu gis nguur gi teg donc teg ko ak huiliers yi jàpp nañ ne suñ ci suñ ko bàyyiwul daal dinañ dem ba yegg ci en tout cas euh, réew yi nga xam ne ñoo ñoo gën a mën a produire gerte. bu boo boobaa xanaa mhm. euh, suñuy semence dañ koy gën a liggéey ci même réew bañ di ko jëli. mais bien sûr bien sûr. Mhm. mooy li ma wax rek donc euh, mbir mi filière la donc ci béykat ba gën ndaw ba ci huilier bi da ñëpp dañ ci war dañ leen ci war a boole sóoraale leen ci. ku ci mhm. nekk am nga ci am nga ci xalaat am nga ci kàddu su ko defee daal ñu organiser ko ba ñëw ñëpp ku ci nekk wax ci li nga ci war a wax ñu teg ko fi ñu ko war a teg jàpp nañ ne donc liñ ci bëgg yëpp dinañ ko am bu soobee yàlla. moom tamit beneen aspect ba ñu nemmeeku ñu bëri du ñuy daw wutali secteur bi. huilier yi lu ko waral ndax dafa jafe. wala dafa bëri ay taxes day gaañ. Ah, ci locaux yi ci locaux waaw waaw waaw bëri na bëri na bëri na ay ay ay anti investisseurs locaux yoo xam ne bëggoon nañ ci dugg mais jafe-jafe yi am at yi passé moo tax ñu xaw a ragal mais jàpp naa ne suñ ko organiser ba teg ko si yoon ñoom ñëpp dinañ dugg si parce que objectif bi mooy lépp lu ñu fi béy. ah doomi réew mi jënd ko liggéey ko ñu ñu ñu tout cas jëriñu ko ci biir réew mi loolu mooy objectif. et juste loolu yëpp uh-huh. organisation la rek la laaj. et justement am nañu ne euh, secteur gerte gi comme Sabargotas doo xàmmee mm-hmm. kan mooy kan ndax loolu mm-hmm. dëgg la. dë dëgg la dëgg la mais ren nag ren nag moom euh, mbir mi xaw na xaw na commencé tegu ci yoon. Ah. dañu moo tax ñuy ñaax euh, ñuy ñaax gouvernement bi rek. Mm-hmm. ñu dolli def effort gën a organiser. acteurs yi yëpp ñu sóoraale leen ñu continuer di di di di en tout cas di waxtaan. ba ba ba lépp teguwaat ci yoon. Mm, d'accord sëñ bi Samba Wane ñu lay jaajëfal baax a baax. maa lay gërëm di la sant soxna. merci beaucoup.